dégg nga parce que benn instant waxu dëgg waaw xam xam nga wax dëgg bàyyi ma expliqué ko bàyyi ma expliqué merci bàyyi ma expliqué waaw léegi xam mais jël sama xaalis baaxul ay naw exactement he accept he agree with you. non dëgg la loolu dëgg la xam nga problème bi mooy lan. Hmm. xam nga problème Mahmoud xoola hmm. mu mënoo wax. ba pare ba pare di jéem a. protéger waxaat leneen déedéet du loolu comprendre nga. xam nga lan laay wax dama koy wax man ki nga xam ne waxul. fii sans fil la fii baaxut fii bëgguma sa dama la man man xoola dëgg na xam nga. mën naa ko arrêté. déedéet déedéet xam nga lan la. ci këru avocat laa juddoo mënoo maa réeral ci wax wax bi benn wax kese lay doon Mouhamed dama la doon jéem a door dóor bi mooy maa ngi jéggul est-ce que comprendre doo paa est-ce que doo paa amoo bejjaaw yow ñu ñaar ñoo tolloo ak est-ce que ay nandite lañu est-ce que comprendre ñoo bokk génération mënoo ñëw luxus luxus luxus est-ce que comprendre ba yóbbu xaalis bi mënul nekk xaalis bi yónnee woo ko yónnee wu ma ko. xam naa ne yónnee woo ko mais danga ma ne da nga koy yónnee ma. nangu nanguwaat na loolu. xam nga maa ngi maa ngi lay chance pour nga wax ma dëgg bi. moo tax mais bëgg ma wax dëgg bi. kay léegi nga ma koy soog a wax lii commencé na depuis suba. man maa wax moom yaa ma o nag téléphone ne ma kaay wax ak ma man ñëw nangu. Mm-hmm. yaa ngi dégg nangu na wax bi jeex na fees. Mm-hmm. Mm-hmm. man la li nga naa la doog ci pàcc. Mahfouz du ma la gis benn bi nga bi nga xamante fekkee wu ba ñuy dégg fekkee wu ba ñu xamante fekkee wu mënoo rey nit ki ba pare suba la lii xew ba pare ne waaw ba tey jii si ngoon yi moom moo téléphone dama kaay dimbali ma soo reyee rek rek jeex parce que daf ma dóor wala boog kon ñëw yëpp suñu pour ngeen problème dafa am dama lay wax fi nga xamante ni bi da nga gëm ne daf ko dóor daf ko dóor kay ba mu ba mu filmé dama wax loolu moom moom ABC this is not important eh, non non jeex na jeex na xaaral man man is important li wax yi right exactly Diop bàyyil kii. daaw man dama leen ne xaalis bi dinaa ko yónnee waaye dinaa ko yónnee weste bàcc xam nga loolu laa gambien malien guinéen mauritanien bépp africain rek. Mhm. bi nga xamante ne tey bëgg na dégg discours bi. Euh, dañ la invité 1700 Jérôme Avenue. 1700 mhm. Jérôme Avenue in the Bronx. Euh, it's tomorrow suba incha allah. 6 heures. 6 p.m. incha allah. mais moo discours bi dañ ci ñama tuuti. discours bi waaw. discours de la renaissance jàpp ji non bàyyil ma foog jaune bi ba l'instant. <laughs> non xaaral xaaral non garaaw appelé appelé photo am problème xaaral ñu pare ñëpp daan ko dawal dama ko defee dama ko nuyu dama dama ko defee le grand champion est là ah on vient avec Guigui Guigui là ah Guigui nga ne waaw waaw avec son sympathisant Guigui liiru may ma loolu may ma loolu parce que déglu ma parce que benn instant moo ko ah, dëgg waaw xam xam nga wax dëgg li ko li ko mais li ko nekkul sax bàyyi ma expliqué ko bàyyi ma expliqué merci bàyyi ma expliqué waaw léegi mais jël sama xaalis baaxul ay naw exactement he accept he agree with you. non loolu dëgg la loolu dëgg la xam nga problème bi mooy lan. xam nga problème Mahmoud xoola mu mënoo wax. ba pare ba pare di jéem a. protéger waxaat leneen loolu da nga comprendre nga. xam nga lan laay wax dama koy wax man ki nga xam ne waxul. fii sans fil la fii baaxut fii bëgguma sa dama la sama lan la ah sama lan la. man xoola dëgg ndax xam nga. mën naa ko arrêté. déedéet déedéet sama lan la. ci këru avocat laa juddoo. mënoo maa réeral ci wax. wax bi benn wax kese lay doon. Mouhamed dama la doon jéem a dóor. dóor bi mooy maa ngi jégalu. est-ce que comprendre doo paa est-ce que doo paa amoo bejjaaw yow ñu ñaar ñoo tolloo ak. ay nanite lañu. est-ce que comprendre nga ñoo bokk génération. mënoo ñëw luxus luxus luxus. est ba yóbbu xaalis bi mënul nekk. xaalis bi yónnee woo yónnee ma ko xam naa ne yónnee woo ko mais danga ma ne danga koy yónnee nangu nanguwaat na loolu naa loolu xam nga ma wax la loolu maa ngi ma ba léegi maa ngi lay may chance pour nga wax ma dëgg bi moo tax mais wax dëgg bi kay léegi ma koy wax lii commencé na wax ak moom yaa ma oo nag téléphone ne ma wax ak moom mu nangu yaa ngi nangu na wax bi jeex na fees la li nga xam ne exactement moo tax ba ma filmé rek naa la xam nga lan moo xew exactement Mahfouz dama lay sa bi nga bi ñu xamante fekkewu ma mm. ba ñuy dégg fekkewu ma ba ñu xamante fekkewu ma mënoo rey nit ki ba pare suba la li xew mm. ba pare ne waaw ba tey jii si ngoon yi moom moo téléphone dama mm. kaay dimbali ma soo reyee rek rek jeex fekk daf ma dóor wala boog kon ñëw yóbbu sa pour ngeen problème dafa am dama lay wax ki nga xamante ni bi dama boom ne daf ko dóor daf ko dóor kay bu ma bu ma filmé dama wax loolu. moom moom moom ABC this is not important. Eh, non non jeex na jeex na xaaral. man man is important. dëgg la yow right exactly yow bàyyil la xaalis bi dinaa ko yónnee waaye dinaa ko yónnee partir du Saint-Coran et des produits naturels. On n'a jamais eu de clients qui réclament des effets secondaires. Tout est naturel et sain. Kuy ngoro kàttan sëy kuy gaaw àgg buy jotee ak soxnaam raxul dara lépp naturel bokkul ak yi ngay utiliser sa kàttan yokku un mois rek arrêté waat dafa efficace deux semaines rek mu jeex jigéen aussi mën na ko utiliser bari na yeneen yu muy saafara traitement hémorroïde interne ak externe incha allah ñetti fan rek nga tàmbalee gis ay coppite lu jëm itamit nag ci traitement ndoxum siti quinze jours rek mu jeex bu ngeen ñu bëggee jot woo leen ñu ci 77 139 62 00 wala ci suñu whatsapp bi itamit 139 62 00 livraison fépp ci Sénégal ak ci bitim réew